allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim barke Seex Ahmadu Bamba Mbàkke xadimu rasul jikkoy jamono ji salaamun aleykum na ngeen déglu ngir ma dénkaane luy jur njariñ dàqi lor na ngeen déglu wax ji bu leen xool ki wax jagal ñàkka a jagte bu ko xëy defar dama réer ci mandim ci waxtu lëndëm di jooy wàllu ngir njàqareeg tiis wu tar juddoog xam-xam ak taar alal doole pal la saytaane bànneex bakkan samp kër am ak ñàkk yóbbal la téewul dimbër fa lambooy sagar ak sa cër te sàkket yi ak gi ñax tax te bon taxul it nga baax boo xamee duñu la wor wataak mbaam étas ak sëngal dub nattu ku baax duñu ko xool ciy kër ak ay sagar ko am sant way ñàkk daawar di muñ ka jar naw na am diine tey sàmm ngor am ak ñàkk bu mu tax nga xeet mbaa nga naw ne gor suy liggéey teg ca jom doy na cër ku yàkkamti seeneen añaan teg ca nay tayel ñàkk jom xeet sa cër dootu gor ko am fulla am fayda jub teg ca way teraangaaki ki barkeeg ngërëm xëy ko dar li tax nag ma tiit xam te man tax te jëf te kuy làmb toot yàq jëf mbaa mu lor salaatun salaamun alal Mustafa wala lii sax beeg ña aw seeni ngir Mbàkke Bawal samedi fukki fan ak ñett ci weeru si 2020 Ahmadou Diongue Baye Diagal baleen ma àq jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf